الحب اللي عمره ما يشمت asalaamaaleykum mbokki déglukat yi seen mbokk seen xarit pasteur Ahmed Fall moo dellu siwaat ak yéen ci sunu émission kàddu gu sell gi te di leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di dellu di sant yàlla sunu boroom ci turu Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist
آه asalaamaaleykum sunu mbokk yi ñuy déglu fii ci sunu programme bi ñu dippee kàddu gu sell gi man seen mbokk seen xarit pasteur Ahmed Fall maa dellu siwaat ak yéen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di nuyu ñépp ñi ñuy déglu muy fii ci Sénégal ak ci bitim réew ndaxte xam ngeen ne sunu programme bi mën ngeen ñuy déglu ci internet bi ci www point kàddu gu sell gi point com ñuy sant yàlla sunu borom bi nga xam ne moo ñu may ñu tal ko ba teew fi tey te di ñaan ci turu ci barke Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ lépp li nga xam ne ñu ngi ko fi wax yàlla na doon yokkute yàlla na doon yool ci ñi koy déglu ak ñi koy wax sunu émission tey nag ma séq ko ak seen doomu ndey ak sunu xarit sama doomu ndey pasteur Balla Konaté ma bàyyi ko mu nuyoog yéen mbokk auditeurs yi balaa ñuy jóox ci waxtaanu tey bi
jërëjëf pasteur Ahmed maa ngi lay gërëm di la sant ginnaaw bi ma gërëmee te sant yàlla sunu borom moom mi ñu may ñu fekkee ak tal ba mën a toog fi tey ci suba si di waxtaan ak mbokk yi nga xam ne ñoo ñuy déglu may nuyu kenn ku nekk ci ñoom ci turam ak ci santam te di wéy di ñaan rek yàlla di ñu gën di gindi di gën di wàcce jàmmam ak ay ngëneelam ci dund kenn ku nekk ci ñun pasteur Ahmed.
jërëjëf pasteur Balla Konaté sunu waxtaanu tey nag ci benn ponk képp lañ koy tënk muy njiit wala boo kilifa dañuy wax ne askan wu nekk dafa war a am njiit te loolu sax lañu gis ci biir àdduna askan boo gis rekk réew moo gis gox boo dem am na njiit am na kilifa yu fa nekk am na ay njiit yu fa nekk tey nag dañuy xool ci téere bu sell bi lan lañu yàlla sunu boroom wax lan lañu jëmm ju sell jooju jàngal muy seydina isa almasi bi yeesu kirist ci taxawaay bi nga xam ne war nañ ko taxaw sunu diggante njiit kon pasteur Balla damay jàng ci kóllëre gu bees gi ci xaaj bi ñu bataaxal bi ñu jagleel waa Rom ci aaya fukk ak ñett saar benn ba ci ñaar lii la yàlla sunu boroom wax nee na gannaaw loolu na nit ku nekk déggeel ñi yore baat ca kanamam ndaxte amul njiit lu fi yàlla sampul njiit yépp nag yàlla moo leen fi teg kon ku leen bañ a déggal ndigaalu yàlla nga lànk te ku def loolu yoon dina la dab pasteur Balla yàlla sunu borom daf ñuy wax ci saar bi nee na gannaaw loolu na nit ku nekk déggal ñi yore baat ci kanamam ndaxte amul njiit lu fi yàlla sampul njiit yépp nag yàlla moo leen fi teg yàlla sunu borom mi ngi wax foofu ci njiit te dafa mel ne dafa ñuy wax foofu fan la njiit cosaanoo fan la kilifa cosaanoo
waaw pasteur Ahmed jërëjëf ni ko téere bu sell bi àndee te nga jàngee ko noonu la euh, njiit daal mën nañu jàpp ni ndombal tànk la mën nañu jàpp ni taxawaay la boo xam ne jógewul ci bëgg-bëggu doomu aadama waaye mu ngi jóge ci yàlla sunu borom yàlla sunu borom moom moo moom moo andi taxawaay boobu moom moo andi ndombal tànk boobu moom moo ne doomu aadama yi nga xam ne sàkk naa leen ci sama melokaan fépp fu ñu mën a daje ñu doon ab groupe mu néew mu bëri war naa am koo xam ne dafa jiitu war naa am koo xam ni moom ëllëg moom laay laaj man yàlla nan la jiite woon nit ñi ci lan la leen doon xiirtal ci lan la leen doon jëmale kon ñu gis ni yàlla sunu borom daal moo ko bëgg njiit bëgg-bëgguk yàlla la njiit ndombal tànk la boo xam ne yàlla moo koy jox doomu aadama bi kon du man maay xool rek ma ne war nañu am jiit wala waruñu am jiit waaye lii bëgg-bëgguk yàlla la normal tànk la boo xam ne yàlla moo ko samp te képp kuy doomu aadama war nga bàyyi loolu xel ndax boo xamee fa mu jóge lam fa mu cosaano ak lan moo ko waral di nga xam lan moo war a doon sa taxawaay jëmale ko ci njiit bi pasteur Ameth waaw bu ma bu ma déggee li nga wax bu ma déggee itam ci kàttanu xel mu sell mi li ñu yàlla sunu borom di wax dafa mel ne mi ngi naan ñu foofu kat yéen ñi nga xam ne sàkk naa leen askan yi xam leen ne njiit baax na ci seen biir kon njiit lu am solo la ci biir askan waaw pasteur Ameth xam nga nag yàlla sunu borom amul lenn loo xam ne sant na ko doomu aadama bi wala mu bëggal ko doomu aadama bi te du ngëneel ci dundam yàlla amul lenn lum ñuy sant kon moom bu ñu nee rek njiit dama ko taxawal njiit dafa war a am ci seen biir dund kon li ñu war a njëkk a jàpp ñun bani aadama mooy ne njiit lu am solo la njiit lu baax la ci ñun ndaxte lépp lu ñu yàlla jox rek lu am solo la lu baax la te gis nga pasteur Ameth dañuy wax ndaxte dañuy wax ak bani aadama ñun ay bani aadama lañu waaye même boo xoolee ci mala yi da ngay gis ni am njiit yàlla daf ko mooñaale ci lépp loo xam ne daf ko sàkk waaw waaw damay damay bo dagguma la pasteur Bala ndaxte booy faral di seetaan télévision da ngay gis ne bu ñu defee loolu nga xam ne moom mooy émission yi jëm ci mala yi rawatina chaîne bu mel ne dafa ma publicité nag chaîne bu mel ne National Geographic da ngay gis yenn saa yi dañ lay woon mala yu nekk ñu doon ñu doon ci ci ci ci lim bu bu takku takku ak nu mu bari bari dana ci am benn ñaar ñett am limu njiit boo xam ne mi ngi ci seen biir. dañ koy gis ci mala yi.
mu ngi ci seen biir looloo tax nag pasteur Ameth ni nga ko seetloo noonu la te ñëpp ñiy gëstu mbirum gàncax mi mbirum jur gi mbirum mala yi dañ koy dañ koy gis ma gis nga li ko dalee ci ci melentaan bi gën a tuuti ba ci gaynde bi ñuy wax ni mooy buuru rabu àll àll yi da ngay gis toujours que ni fu ñu daje rek nekk fa groupe am na koo xam ne moo koy jiite kon ñu gis ne njiit yàlla daf ko mooñ ñaale ci biir lépp li nga xam ni daf ko sàkk rawatina nag ñun bani aadama ndaxte ñun yemul rek ci moo ñaale ñu ko waaye daf ñu ko wax daf ñu wax nag ne lii man maa ko samp lii laa bëgg ci njiit parce que dafa am lu am solo lu mu leen di jural dafa am lu am solo lu tax ma jox leen ko te ngëneel kese la pasteur Ameth kon mbokki auditeurs yi ñu jàng ci téere bu sell bi ne yàlla sunu borom mi ngi ñuy leeralal benn mbir mooy moom mooy samp ay njiit moom moom moo sabab njiit njiit du ci pexe doomu aadama njiit du ci sunu kàttan njiit du ñun ñoo ko sos sosuñu njiit sosuñu njiit yàlla sunu borom moom moo sos njiit te loolu la ñu jàngal kilifa buñ nee kilifa yàlla sunu borom moom moo sos kilifa moom moo ko sabab moom moo ne kilifa day am moom moo ne njiit day am moom moo ne ñi yore baat day am ndaxte noonu la ko waxee ci saar bi nee na ñi yore baat ci kanamu askan wi yàlla sunu borom moom moo sabab loolu. jërëjëf mbokki auditeurs yi kon ñuy wéy di jàng ci téere bu sell bi ci bible bi li ñu yàlla sunu borom wax ci kóllëre gu bees gi ñuy wax nouveau testament. ci bataaxal bi ñu jagleel waa Rom ci aaya fukk ak ñett saar benn ba ñaar kon yàlla sunu borom di ñu wax foofu ne gannaaw loolu na nit ku nekk déggal ñi yore baat ci kanamam ndaxte amul njiit lu fi yàlla sampul njiit yépp nag yàlla moo leen fi teg kon ku leen bañ a déggal ndigaalu yàlla nga lànk te ku def loolu yoon dina la dab pasteur Balla bi ñu yàlla sunu borom leeralee ne njiit kilifa borom ndombal tànk moom moo ko sabab daf ci yokk ne dee leen déggal seeni njiit dee leen déggal seeni njiit dee leen déggal ñi nga xam ne ñoo yore baat ci seen kanam yokk ci sax ne ku leen déggalul yoon dana la dab loolu du du du du du du lu ma fent du loo fent du lu doomu aadama fent yàlla sunu borom moo ko wax ci téeram bu sell bi nee na dee leen déggal seeni njiit dee leen déggal seeni kilifa dee leen déggal ñi am baat ci seen kanam
waaw gis nga pasteur Ahmed euh, ni ma koy faral di waxee gis nga yàlla ay mbiram li ko ni tubaab di wax dafa am logique du du tëb di dal fii di dal fële gis nañu léegi ni njiit mbir ndombal tànk la boo xam ni taxawaay la boo xam ni yàlla moo ko bëgg moom moo ñu wax nañu am ay njiit alors képp koo xam ne am nga njiit képp koo xam ne am na ku am baat ci sa kanam te fulaaloo ko déggaloo ko li ngay def li nga war a xalaat mooy ne li nga nekk di def mooy di ñàkkal fayda bëgg-bëgguk yàlla mooy di ñàkkal fayda ab taxawaay boo xam ne yàlla moo bëgg ñu taxawu ko kon yàlla nee na képp ku am baat ci suñu biir dañ ko war a déggal lu tax ndaxte yàlla moo ko fa teg ci bërëb ba mu nekk ci ndombal tànk ba mu yore bëgg-bëggu yàlla la kon bu dee ñun xam nañu yàlla ñun bëgg nañu yàlla bëgg nañu di topp yàlla kon dañoo bëgg a topp bëgg-bëggu yàlla yi te téere bi wax nañu ne bokk na ci bëgg-bëggu yàlla yi ñuy topp njiit bokk na ci bëgg-bëggu yàlla yi ñuy déggal njiit ki yore baat baat boobu mu yore nag yàlla moo ko ko jox baat boobu mu yore yàlla moo ko ko takkal muy ndombal tànk kon bu ñu ko déggalul ñu ngi def safaanu bëgg-bëggug yàlla te ku def safaanu bëgg-bëggug yàlla wax dëgg fa yàlla yoon dina la dab pasteur Ahmed waaw dafa mel ne yàlla sunu borom dafa am lu mu ñu lu mu ñu lu mu ñu lu mu ñu wax soññ ñu ci ne ñu kat gëm ma dafa ànd ak déggal njiit dafa mel ne yàlla sunu borom daf ñuy wax foofu ne nit ki nga xam ne gëm na ko benn ci firnde yi nga xam ne firnde yi nag bari na mais benn ci firnde yi nga xam ne moom ngay wone kat ne man mii gëm naa yàlla déggal njiit ci la bokk.
waaw gis nga pasteur Ahmed ndaxte sànq junju naa ko ci sama wax mooy ne njiit taxawaayu yàlla lay taxaw ci suñu biir wala moom la war a taxaw ci suñu biir représentant wu yàlla la ci suñu kanam moom njiit boobu kon kooku dañ ko war a dañ ko war a jox cër kooku dañ ko war a déglu kooku dañ ko war a wormaal kooku dañ ko war a topp ci bëgg-bëgguk yàlla yu sell yi kon gis nga ni comme bëgg-bëgguk yàlla la te yàlla jox ñu ko yàlla teg ko suñu kanam wax dëgg fa yàlla ku ko déggalul yaa ngi bañ a déggal yàlla ku ko topp toppul yaa ngi bañ a topp yàlla déggal ko nag topp ko sauf bu dee daf la bëgg a jëmale ci loo xam ni safaanu bëgg-bëggug yàlla la pasteur Ahmed.
waaw pasteur Balla may wéy di jàng ci téere bu sell bi li ñuy yàlla sunu borom wax ci njiit yi yàlla sunu borom mi ngi ñuy wax ci kóllëre gu bees gi ci bataaxal bi ñu dippee Pierre un Pierre ci aaya ñaar saar fukk ak ñett mi ngi wax foofu ne. na seen na seen nangu borom bi tax ngeen déggal képp kuy kilifa muy buur bu kawe mbaa jawriñ yu muy yabal nee na nee na na seen nangu borom bi tax na ngeen seen gëm yàlla na tax ngeen ni déglu ngeen ni déggal képp kuy kilifa mbaa ngay njiit rawatina sax jawriñ gi nga xam ne kilifa gi njiit gi daf ko yabal ci yéen wa waa xam nga ñun en tout cas ñun ñi nga xam ne ay taalibe ci njabootu Seydina Isa Yesu Krista la ñu bokk lii la ñu yàlla sant yàlla dafa ne gëm bi ngeen ma gëm ragal bi ngeen ma ragal cofeel mbëggeel bi ngeen am ci man na tax lépp loo xam ne sant naa leen ko rek na ngeen ca ne te gis nañu ne bokk na ci li mu ñu sant mooy ne góor gi mu tànn wala jigéen ji mu tànn ngir mu jiitu kooku nañu ko wormaal nañu ko jox cër nañu koy topp kon gis nga pasteur Ahmed lii aaya yii di wax li saar bii di wax du ne damay topp pasteur Ahmed ndaxte moom njiit la boo xam ne daf ma neex moom njiit la boo xam ne daf may jox dara moom njiit la boo xam ne daf may seet si déedéet yàlla dafa ne damay topp pasteur Ahmed ndax njiit la te man dama gëm yàlla dama bëgg yàlla te taxawaay boobu mu taxaw yàlla moo ko fa teg kon sama gëm yàlla sama bëgg yàlla tax na foofu mu taxaw mu tudd Ahmed mu tudd Jean mu tudd Paul wala mu tudd Moustapha man loolu amul solo ci man li am ci solo ci man mooy kii que dafa toog ci chaise dafa toog ci toogukaay boo xam ne yàlla moo ko fa dëj te man gëm naa yàlla bëgg naa yàlla kon damay bëgg toppatoo nit ku mel noonu dama koy déggal ndax ma mën a neex yàlla sama borom pasteur Ameth waaw parce que ndaxte li yàlla sunu borom wax fii ci saar bi dañ ko war a déglu bu baax nee na nax seen nangul ma nax seen nangul ma boo leen ma nangulee man yàlla nga xam ne man maa man maa man maay samp kilifa maay samp njiit boo leen ma nangulee na ngeen déglu képp kuy kilifa rawatina sax kilifa googu bu yónnee ab jawriñam wala mu sant ab samp ab jawriñam da ngeen ko déglu waa xam nga pasteur Ameth euh, man su ma nekkee ci bërëb moo xam sama kër la moo xam ci biti la moo xam ci réew mi la moo xam gox bi ma nekk la te nanguwumaa déglu njiit ba fa nekk mais déggaluma yàlla yàlla dafa ne nangul leen ma ne kii man maa ko fi teg nangul leen ma ne kii man maa ko jiital alors man su may xalab nit kooku su ma ko nangul déggal mais dama euh, euh, nañ ma jégal ci waxin bi mais day mel ni dama bëgg a wax yàlla ne ko yow ki nga tànn baaxul ki nga tànn baaxul wala man ki nga position bi nga jox waa ji amaluma amaluma benn fulla duma ko fullaal kon nangul bi ñu nangul yàlla moo tax ñuy nangu ne kii fi mu nekk yàllaa ko fa teg te comme yàllaa ko fa teg pasteur Ameth man dama koy déggal ndax déggal ko mooy déggal yàlla te déggal yàlla mooy neex yàlla pasteur Ameth pasteur Balla ci ñetteelu xaaju waxtaan bi danaa la laaj kan mooy njiit kan mooy kilifa wante dama bëgg rek mbokki auditeurs yi déglu xam ne lii ñuy wax fii du sunuy kàddu dañ ko tibbee ci téere bu sell bi nga xam ne yàlla sunu boroom moo ñu ko jox kon bi ci njëkk ma koy fàttali mbokki auditeurs yi mooy yàlla sunu boroom moom la soob mu samp njiit mu samp kilifa yàlla sunu boroom moom moo dogal loolu kilifa ak njiit moom moo ne kat dana am ci biir askan yi ñaareel yi mi ngi ñuy wax ne kat bu dee bëgg ngeen ma déggal ngeen ma kon dee leen ñuy déggal seeni njiit rawatina sax njiit boobu bu yabalee ab jawriñam dee leen ko déglu jërëjëf mbokki auditeurs yi kon yal na yàlla sunu borom wéy di ubbi sunuy xel laal sunuy xol ba nga xam ne li mu ñuy soññ danañ ci jóox danañ koy jëfee bu baax ndaxte yàlla sunu borom lépp luñ mu ñu wax rek sunu njariñ la te képp ku jàpp ay digaaleem njariñ rek nga ciy gis bànneex rek nga ciy gis texe rek nga ciy jëlee pasteur Balla ñi ngi wax njiit ñi ngi wax kilifa ñi ngi wax borom sañ-sañ ñi ngi wax borom ndombal tànk waaw pasteur Balla tey jii buñ doon lim ay njiit ñan lañu mën a wax ne ci sunuy askan rawatina sax fii ci biir Sénégal ñan lañu mën a lim ne ay njiit lañu waxuma nag ay tur dugguma ci ay tur dama wax rek buñ doon wax kil njiit buñ doon wax kilifa kan mooy njiit kan mooy kilifa kan mooy borom ndombal tànk
jërëjëf pasteur Ameth laaj boobu nga laaj dafa nekk laaj bu am solo njiit bi jiitu ci njiit yi moo xam Sénégal la moo xam feneen la ci àddina si àddina wërngal këpp njiit bi njëkk ci njiit yi mooy yàlla sunu borom bépp sañ-sañ bépp kàttan moom moo ko moom waxuma ne am na sañ-sañ wala am na kàttan mais moom mooy borom sañ-sañ moom mooy borom kàttan moom mooy njiit bu mag bi loolu bu weesoo nag pasteur Ameth nguuram boobu nga xam ne moo ko moom te yoreel ko boppam daf ciy jël ay pàcc am ay doomu aadama yum ko séddale kon bu weesoo yàlla sunu borom njiit bi topp ci moom sës ci moom rëkk bu weesoo yàlla sunu borom mooy suñuy ñaari waajur moo tax da ngay gis ci téere bu sell bi ci yoonu Musaa yàlla daf ci daf ci wax bu baax a baax ne na ngeen déggal seeni waajur pasteur Ameth aha pasteur Balla doguma la da nga tàmbali ne kilifa gi njëkk njiit bi njëkk borom sañ-sañ bi njëkk mooy yàlla sunu borom nga teg ci waajur waxuloo yonent de déedéet waxuloo keneen da nga ne waajur te Balla da nga ne ci yoonu Musaa ci tawreet may fàttali mbokki auditeur ne yàlla sunu borom dafa wax dafa joxe fukki ndigaale yi gën a am solo maanaam lépp li nga xam ne jàngal na ko doomu aadama bëgg na doomu aadama di ko jëfee daf ko tënk ci fukki ndigaale bu ma ko waxee ci nasaraan sax ñenn ñi gën ko dégg mooy les dix commandements te ci dix commandements yooyu fukki ndigaale yooyu yàlla daf ci feeñal boppam boppam la ñëkk a wax ki mu ci teg rëkk rëkk mooy waajur tegu ci keneen tudd tuddul yonent tuddul tuddul euh, euh, wàlliyu tuddul borom xam-xam tuddul kenn kenn kenn tuddul kenn amul kenn koo xam ne tudd na la fa kudul waajur dafa ne man bi mu jeexalee ci boppam mu dellu si ne waajur kon waajur njiit la kilifa la borom sañ-sañ la bu sës rëkk nag ci yàlla sunu borom xam nga Sénégal réew mii ñu nekk dañuy faral di wax ni yàlla daf ñu andi ci àddina si ngir ñu koy jaamu mais ci waajur la jaar pour andi ñu ci àddina si gis nga moo tax téere bu sell bi comme ni nga ko waxee pasteur Ahmed dem na ba ne euh, waajur njiit la boo xam ne yàlla daf ko fonk bi façon fonk ba mooy ndigal benn ndigal rek bi nga xam ne joxe na ko ba pare teg ci ab neexal waaw teg ci ab neexal yàlla fonk na njiitu waajur fonk na waajur ba nga xam ni nee nañu bu ngeen ko toppee déggal ko ma neexal leen kon nga gis ni boobu njiit dafa sës rëkk ci danaa yàlla danaa yokk seeni fan te jàll bu ne danaa yokk say fan mooy dana ko yokk ba pare nag yokk ci lépp li nga xam ne teraanga àdduna la mais loolu la mooy ni ko waa ji di waxee rek te ñëpp xam ko jarul may jaas ci turam bu muy naan ku yokk cere yokk ñeex Aha.
yàlla bu yokkee ay fan day ndax mbégte bi mu am ci ñun day yokk it taraanga day yokk ay ngëneel ci suñu biir dund kon ñu gis loolu solo bi mu am ndaxte laata ñuy wax yonent wala ñuy wax pasteur wala ñuy wax njiitu diine mais dafa fekk nga ne fi boo fi nekkul doo gis yonent doo gis kilifa diine te sa nekkaay fii ginnaaw yàlla ci waajur yi la jaar ci waajur yi la jaar kon bu weesoo waajur bi ñu daal di génn kër gi boo génnee kër gi da ngay gis beneen njiit njiit boobu mën na tudd chef de quartier mën na tudd chef de village mais njiit la bu ko yàlla bu yàlla teg ci gox boobu ah mu nekk njiit boo génnee foofu tuuti di nga gis yeneen i njiit bëri nañu mën na doon commissaire de police bi mën na doon chef commandant de brigade bi Mën na doon euh, sous-préfet.
sous-préfet préfet ah gouverneur mën na doon noonu di yéeg ba ci ministre bi di yéeg nag ba kañuy woowee président de la république Aha.
ñooñu ñëpp di ay nit ñoo xam ni yàlla daf leen takkal ndombal tànk def leen ay njiit te bëgg nag ñu déglu leen bëgg ñu leen di topp ndaxte loolu mooy ni li neex yàlla kon daal nañu jàpp ne njiit bi gën a màgg ci njiit yi yàlla sunu borom la bu weesoo ki ci tu sës rëkk mooy ki nga xam ne mooy suñuy ñaari waajur beneen njiit bu ma fàtte pasteur Ahmed mooy mooy kilifa diine bi moom it njiit la boo ñëwee ñun ci suñu jàngu yi am na ay nit ñu yoo xam ni yàlla daf leen tànn takkal leen ay ndombol tànk ñu leen di woowee pasteur ñuy jiite mbooloo ma ay njiit la ñuy fa yàlla teg ngir ñuy gindi di tete mbooloo mi ci bëgg-bëgguk yàlla yi ba ci bërëbu liggéeykat yi pa pasteur am na ki nga xam ne moom ngay liggéeyal sa patron la sa njiit la même bu dee yow da man dama am cinquante ans ma am patron bu am dix-neuf ans sama njiit la Waaw.
sama njiit la kooku dama ko war a déggal dama war a def pasteur ameen mbir yi ni mu waree waaw pasteur Balla da nga wax sànq ci njiit yi nga xam ne ñi ngi ci biir kër gi ndaxte da nga tàmbalee ci yàlla sunu borom nga xam ne mooy njiit gi njëkk nga dugg ci waajur dama gis ne itam ci biir kër boo jëlee ab soxna jël ay doom borom kër ga mooy njiit soxna soo jël goo xam ne mi ngi ci néegu sëy kilifaam gu njëkk njiitam gu njëkk mooy kan mooy borom këram mooy borom këram te loolu nag sama sama mbokk jigéen ñi nañu ma nañu ma ci jéggal waaye dañu toll ci jamono joo xam ne jigéen ñi dañu am jafe-jafe ak loolu dañu am jafe-jafe rawatina jigéen ñi nga xam ne dañuy wax ni dañuy jàng waaye li ñu war a li ñu war a xam mooy ne comme ni nga ko waxee boo duggee ci kër gi kilifa kër gi njiitu kër gi ku góor ji la mooy borom kër gi mooy njiitu kër gi ndombal tànk la boo xam ne yàlla daf ko ko takkal léegi nag li nit ñi di réeree mbir li andi yenn saa yi jafe-jafe mooy dañuy dañuy jaxase njiit bi ak ni muy doxalee li ko yàlla dégg aha ni mu koy doxalee kii daal njiit la yàlla moo ko jiital ni muy def nag ndombol tànk boobu ko yàlla dénk ni mu koy jëriñoo loolu beneen wax la loolu beneen mbir la waaye yow la la war mooy ne kii sa borom kër la sa njiit la da nga ko war a déglu loolu mooy la lay wax yow moom la ko war moom njiit bi mooy loolu ko yàlla dénk mu jëfandikoo ko ni ni mu neexee yàlla kenn ku nekk ci ñun nag yàlla dana la woo laaj la yow la la waroon nan nga ko doxale nan nga ko doxale kon nañu jàpp ne ci biir kër gi borom kër gi ku góor ki moom la yàlla jiital du lu góor ñi akimoo du lu góor ñi foxati waaye téere bu sell bi moo leen ko jox te bu ñu ko defee noonu rek kër gi dina am jàmm kër gi dina am naataange ndaxte kër gi dina dox ci bëgg-bëggug yàlla yi te ku nekk ci bëgg-bëggug yàlla yi yàlla fekk si la ci pasteur Ameth jërëjëf pasteur Balla kon mbokki auditeurs yi ñu bàyyi xel ne njiit ki ñëkk kilifa gi ñëkk borom sañ-sañ bi ñëkk mooy yàlla sunu borom mi ñu sàkk doomu aadama mënul am kilifa mënul am njiit goo xam ne weesu na wala romb na yàlla sunu borom kilifa gi ci tegu njiit yi ci tegu mooy waajur fii ci suuf doomu aadama mënul am lu gën a foor waajur mënul am kilifa gu féete kaw waajur yàlla sunu borom de nanguwu ko yow nag yaa xam képp koo mënta jël def ko sa kilifa jox ko cër warmaal ko wante bul fàtte ne say waajur ñoom ñooy say kilifa say njiit yi ñëkk beneen bi mooy li pasteur Balla lim sànq am na ñoo xam ne ñoo nekk ci biir askan bi mu soob yàlla sunu borom mu jox leen ndombal tànk def leen ay kilifa muy chef de quartier bi muy chef de village bi muy pasteur bi muy imam bi muy commissaire bi muy ñooñu ñépp ba ñu yéeg ci ki nga xam ne moom mooy njiitu réew mi di président de la république yàlla sunu borom ne man man maa sabab kilifa gu mel noonu am ci biir askan yi kon yàlla nañu yàlla sunu borom dimbale ci darajay Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ moom mi nga xam ne dafa fonkoon njiit yàlla nañu yàlla dimbale ba askanu Sénégal ñu xam lan mooy njiit te wormaal ko mbokki auditeurs yi ñu leen di sant di leen gërëm pasteur Balla ñu lay sant di la gërëm ci sa teewaayu tey waxtaan wi nag dama ko bëggee tëjee bii saar bu am solo bi ñu yàlla sunu borom wax ci téeréem bu sell bi ci ñaar ci Timothée ci aaya ñaar saar benn ba ci ñett mu tënk ko rek yàlla sunu borom mi ngi wax foofu naan li ma namm ci yéen mooy ñaanal leen buur yi ak kilifa yi ak njiit yi yàlla sunu borom moo ko wax nee na li ma namm ci yéen ñi ma gëm dee leen ñaanal buur yi ak kilifa yi ak njiit yi
waaw xam nga pasteur Ameth ci tënk rek li war a tax sax ñun ñu leen di ñaanal mooy ni yàlla moo leen fa teg am yan bu mu leen yan kon dañ leen war a ñaanal ngir yan bi oyof ndaxte bu oyofee ci ñun rek ci ñoom rek oyof ci ñun bu oyofee ci ñoom rek neex ci ñun kon li yàlla bëgg mooy bu ñu àtte njiit yi waaye ñu leen di ñaanal bu ma gisee ni njiit bi daa bon bu ma gisee ni njiit bi nekkul di liggéey liggéey bi war li yàlla bëgg du ma sànni ko ay xeer wala ma koy saaga li yàlla bëgg mooy ma koy ñaanal ngir mu baax li yàlla bëgg mooy ma koy ñaanal ngir gis-gisam mën a soppeeku ba mu yóbbu réew mi wala ci kër gi wala bërëbu liggéeykaay ba fa nga xam ne fa la yàlla bëgg mu àgg fa pasteur Ameth mbokki auditeurs yi ñi ngi ñaan yàlla sunu borom ci darajay Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ yàlla nañuy wormaal sunuy njiit muy ki nga xam ne moo jiite réew mi mooy ñi nga xam ne ñooy ay jawriñam mooy ñi nga xam ne ay kilifa diine lañu mooy ñi nga xam ne ay kilifa aada lañu mooy ñi nga xam ne ay chef de village lañu mooy ñi nga xam ne ay chef de quartier lañu képp koo xam ne am nga ndombal tànk kilifa nga njiit nga yàlla nañu yàlla sunu borom may ñun askanu Sénégal ñu mën leen a wormaal di leen ñaanal yëg leen te bañ leen nasaxal bañ leen xeeb te bàyyi di leen xaxar yàlla sunu borom mi ngi ñuy jàngal nañu askan bu amul njiit wala bu nasaxal njiitam askan boobu mi ngi nasaxal boppam askan bu xeeb njiitam askan boobu mi ngi nasaxal boppam kon yàlla nañu yàlla dimbali ci kàttanu Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ moom mi nga xam ne nee na ay waajuram nee na ay ay ay njabootam dee leen jox cër dee leen wormaal seeni jiit nañuy wormaal suñuy njiit nañuy wormaal suñuy njiit nañuy yëg suñuy njiit ci darajay Seydina Issa almasi bi Yesu Christ yal na leen yàlla sunu borom barkeel mbokki auditeurs yi yal nay wéy di wàcce ay xéewalam ci seen kaw yal nay wéy di ñu xiir ci boppam ci darajay Seydina Issa almasi bi Yesu Christ ñu leen di fàttali nag sunu numéro de téléphone bi nga xamee ne mën ngeen ñu ci woo muy 074 35 35 boo leen di wooyee ci numéro téléphone boobu mën nañu jokkoo ak yéen seen mbokk seen xarit pasteur Ahmed Fall ak doomu ndeyam pasteur Balla Konaté ñoo leen doon defal seen émission kàddu gu sell gi wasalaam. mbokki déglukat yi fii la ñuy yemale sunu émission maa ngi leen di sant ci déglu bi te di leen fàttale sunu téléphone di 77 074 35 35 yàlla na yàlla sunu borom wéy di leen barkeel tey wàcce ay yiwam ci seen kaw ci turu Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ mën ngeen jokkoo ak ñun ci 77 074 35 35.